والذين هم للزكاة فاحلون والذين هم لفروجهم حافظون daara bii nga xam ne moom lañ doon daloo tey dafa bokkoon ci digge ñi xam ne président Macky bi ñuy def conseil des ministres délocalisé fii ci région de Diourbel waxoon naa ko sëriñ bi sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke muy ñeenti daara ne danaa ko ci tabax yàlla def tey jii ñett yépp pare nañ benn bi li tax mu entreprise bi ñu ko joxoon moo wàccewul ak liggéey bi ba ñu nangu ko ci moom war a defaat beneen appel d'offre kon liggéey boobu mu defee woon président Macky Sall wàccoon na ak moom moom moo tax tey ñu daloo daara bii nii waaye indi nañu daara fu ñu war a indi daara ndaxte wax naa sànq li nga xam ne moom lañ fi liggéey ci tàggat xale yi ci xam-xam yar xale yi bu tombe ak xalifa sëñ Muntaxa Mbàkke nga xam ne liggéeyam yépp mu ngi ko jëmale ci jàngale sàkku xam-xam da ngeen wax fi projet bu mag bu université bu 37 milliards de francs CFA bu bëgg taxaw fii liggéey boobu mu koy continuer tey sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké sosoon ko fi xalifaam yi ci topp yépp doon ko doxal ba mu yegg ci loxo rafet rafetlu tamit farlu bi nga xam ne moom la Mame baaral farlu ci liggéey bi lu dul benn lu dul ñaar fu ma tasee ak moom wala saa yu ñëwee sama bureau indiwu soxla boppam soxla liggéeyu daara yi la ci la fa doon indi dañu ci sonn soññ pour liggéey bi gaaw ñu ngi koy gërëm ci loolu te xaarum nguur gi indi daara pour mu defar daara ndax lii nga xam ne moom lañ fi wax muy daarul xidmatu xadim yi mu def koo ko gis xam ne nguur gi dafa ñëw dolli ci liggéey bi waaye xaaru ci dara dinaa seede tamit taxawaayu Serigne Cheikh Thioro Mbacke moom tamit saa yu ma gisee wala mu wax ak man wala su ñëwee sama bureau mbirum daara yi la ma doon soj kon boog tey su fekkee ne ñu ngi koy daloo xaj na gouvernement bi am na ci ay jéego. waaye ñoom tamit ci seen farlu ak di ñu soññ moo tax ñu toll fii ñu toll ci bés bi danañ ci delloo njukkal jàngalekat yi nga xam ne tey ñoo tax xale yi tekk fii di tari alxuraan danañu ndokkale tamit waajur yi waajur yu góor yi waajur yu jigéen yi ndaxte tey ñoom ñoo farlu ci yar seeni doom sàkku na leen xam-xam ba xale yi tey ñii di tari ñenn ñi nekk ci daara ji di ndokkale tamit ndongo daara yi nga xam ne ñoom ñoo tari di ñaax seen rakk ak seen morom yi nga xam ne tareeguñu ak yi di ñëw yàlla may leen ñoom tamit ñu nekk ay xaafisul alxuraan li nga xam ne moom la ñu def dafa méngoo ak suñu programme éducation nationale bi président Macky Sall tëral daal di ne nañu yokk qualité njàng mi nañu rafetal ni ñu ko yore waaye nañu yemale doomu Sénégal ci njàng mi looloo tax ñu def programme boo xam ne bii dafay lawal ay daara guleet Sénégal ci ñaari at ci programme boo xam ne bii wër na juróom-ñaari région ñu tabax ci juróom benn fukki daara ak ñeent yoo xam ne yenn yi ci weer wii di ñëw danañ leen tijji ñu koy wax PAMAT daara bi nga xam ne moom lañu daloo dafa bokk ci ñeent daara loo xam ne yi li ko tabax yépp ñett téeméeri million la ak lu xale yi di fa jànge xale ñoo ñu ñëw bokk ci xale yi nga xam ne ñu ngi koy wax ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn yi nga xam ne tari nañ ko alxuraan bi xam ne sos nañu daara yi ba léegi ñëw war a tamit téeméer ak ak ñett nga xam ne tari nañu alxuraan waaye jël nañu téere bi dafa nekk loo xam ne lii yàlla daf ko may diine lislaam te moom rek moo ko am yeneen diine yépp téere bi nga xam ne moom la ñuy sukkandiku des bu réeroon kenn dootul xam li nekk ci téere bi waaye ñun yàlla may ñu ay jullit mën a tari alxuraan ba nga xam ne bés nit bëggoon a jóg sax naan danga nay xeex diine ji réeral alxuraan ca suba ga ay nit dañu toog bindaat ko ne mu mën a loolu nag ngëneel bu yàlla mayal diine lislaam la ngeen wax dana ñu gën a soññ pour ñu continuer li ñuy def ci liggéey bi président Macky Sall soo ko seetee fii su ma jëlee région de Diourbel rek bi mu toogee ba su may wax ak yéen léegi milliard ak lu ëpp juróom fukki million moom la def ci njàng mi ci mbirum daara loolu tabax na walla defaraat na fanweer ak ñeenti daara yoo xam ne yi juróom yi budget état lañu ko defee ñeenti daara yi ci la bokk fukk ñu ngi ko defee ci projet d'appui à la modernisation des daara PAMOD nga xam ne nguuru Sénégal ak banque islamique ñoo ko defar loolu bokk ci juróom benn fukk ak ñeenti daara yooyu ma wax ne ci ñaari at lañ ko tabax ci Sénégal yépp bokk ci fukki daara ak juróom ñeent yoo xam ne ñi dañ leen a defaraat nekkan bi ñu koy wax daara Pikine loolu nag dafay continuer ñu koy def li ngeen wax ne modèle d'éducation boo xam ne bi day méngoo ak li sëriñ bi bëgg loolu gouvernement bi pare na ci pour waxtaan ci parce que jàngal xale ci ndodd gouvernement la ko suñu sart réew kon képp ku ci yëngatu rek gouvernement bi moom mooy dimbali ci loolu donc di leen feddali rek ne incha allah danañu di taxawul ci liggéey bi duma pare nag te gërëmuma kilifa yi fi toog yépp muy kilifa li ñu administration bi mu yéen kilifa diine yi fi toog di wax na ko Kosso Mbacké nga jàllal leen ñu suñu ziyaara ci sëriñ bi sëriñ Mountakha keroog bi ma mujjee toog ak moom ñu ngi fàttali liggéey bi nga xam ne président def na ko fële tamit ci Porokhane ci daar bi yokk fa nekkin waay loolu lañ koy defee ci yeneen daara kon boog ñun ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne tey jii ñëw nañu toogal président ci bés bi muy màndargaal li nga xam ne dige na ko wàccoo ak moom tey jii ci daara yi di ñaan yàlla xale yi fi jàng ñoom ñëpp seen waajur yi ak seen sëriñ yi ak Mame Bara li ñu sant ci ñoom yal na yàlla leen may yal na yàlla may lu ëpp loolu ñi nga xamee ñëpp te nañ fi alxuraan tey yal na yàlla yokk seen xam-xam yal na yàlla yokk seen dëgëraay seen waajur yi sonn ci ñoom ba ñu tari alxuraan boobu ay ngëneel rekk lay doon pour ñoom daje bii ñoom ñu toog fi rek daje ko xale yi toog fi jàng la pour ñoom looloo tax sànq sëriñ bi maa ngi koy wax maa ngi jéggalu xale bi waroon wax ci olof bu mu commencé ñu ne ko da xaar tama ne ko yaakaar dafa foor parce que xale bi su bindee discours xam naa depuis ñaari fan wala ñett fan ñu ngi koy jàng di jàngaat pour wax ko mu nekk bés bu rëy pour moom suñ ko ko xañee dafa am lu muy wàññi ci moom looloo taxoon ma wax ñu jox ko kàddu gi te biñ ko déggee xam nañ ne ñun ñëpp am na luñ jàng ci li mu wax